بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي تلسوات نانوت سنجتا بني فرل دسق دي تجاي ما تانتو اي لاج تاي نقلومات فكي لاج اكبان دي في mu di jéem a tontu rek ci sunu kem kàttan eh, laaj bu njëkk bi day wax ne ab dëkk la bopp bisub àjjuma dafa am lu leen soxal ba talu ñoo julli àjjuma ci waxtu wi ba waxtu tusbaar génn ba waxtu takkusaan dugg eh, la leen soxaloon doora doora teggi ko muy laaj ndax dañuy julli àjjuma ci waxtu woowa wala ku nekk day julli tisbaar rek boobu ñu noppee julli bu dee ci ngër mi day waxtu àjjuma mooy waxtu tisbaar rek kon mooy ba ba jant yi so ci waxtu wi la bokk kon bu fekkee dañoo julliwut àjjuma ba takkusaan dugg itam dañ koy julli eh, bu dee ci ngër mi am na ngër yooyu nag ñoom dañ naan waxtu waxtu wi rek waxtu wi daal muy duggee noonu mooy waxtu ajjuma bu xasee wees ajjuma wees na laaj bi day wax ne dafa am mbokk moom doon waxtaanal moo ne ko bu mag bi sëriñ Tuubaa danaan taana xab mooy laaj nu mu demee dëgg-dëgg loolu de wax dëgg yàlla xaw ma ko man xaw ma ma ne daana ko def de xaw ma ne ko def euh, waaye taxut ma ne daaw ko def ndax xam na ne lim digle woon mooy daal digaloon taalibe yi ñu top ngirum Malik ba buñ ko gisee mu def lu wuteeg ngirum Malik it bañ ko caarooy ñoom te jàpp ci ngir mi la digle kon bu fekkoon ne daana ko defit xam naa kon euh, doonut lu mu digle ñu roy ko ca ndax bu doone digle na ñu roy ko moom kon danañ fekk ñu ñu mu yaroon ñu di ko def ñàkk gi ñàkk fekk ñu mu ñu di ko def nag mooy tax ñu jàpp ne benn daaw ko def wala bu ko daan defit daa bokkut ci yim digle ñu roy ko ñetteelu laaj bi day wax ne day mel ni ku nekk bitim réew la waaye nee na fa mu fa nekk daal bu xëy di liggéey day fekk fajar des lu mat waxtu muy laaj ndax dana mën a julli fajar door a dem te waxtu yu jotagut bu dee suba gi bu dee bëccëg biit nee na buy dem dana fekk tusbaar jot waaye nag balaa àgg foog naa timis dana jot wala daal balaa mën julli wat timis dana jot ñu laaj ko bo way dana sañ jital ak kusan bu dee lu njëkk li muy jital suba mom bokku ci li ñu maye jital julli suba mom waxtoom day jot rek ñu door ko mën julli léegi nak bu dee da ngay dem ci sab liggéey nak bu fekkee ci yoonu la lay fekk buy jot da ngay julle nam la fekke rek bu dee da dugg ci saxaar ci misaal nanga nga toogee na nga jublu rek loolu ngay jullee di di junj euh, kon mooy ba ba jógee kër gi daal na nga laab moom boobu waxtu julli di jot fekk la nga laab bu ko def fekk bu ko defee nga jullee noonu hmm, bu dee yowee dawal moom yaa moom sa boo dawalee ba waxtu jot bu fekkee foo mën a wàcc julli la nga wàcc julli bu fekkee mën a wàcc julli tam nga taxaw julli ci biir oto bi ba noppee jàll bu dee tusbaar nag dafa jot nga war a liggéey te bala nga àgg takkusaan jot wala bala nga mën a julli daal takkusaan jot foofu moom mën nañ fa jàpp ne da nga sañ jiital takkusaan nga julli tusbaar boo noppee julli takkusaan dem am na ñu nangu lu mel noonu ci ngër yi eh, donte bu dee ci ngër ñi nag suñu ngër ñi xëy na lool du ci yomb waaye yeneen ngër yi nangu nañ lu noonu julli takkusaan mënees na ko jiital te lu noonu mën na koo maye ñeenteel laaj bi day wax ne xadis bi di wax ne ana ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha dafa dégg ku wax ne ñi gëstu xadis dafa am luñ ci wax muy laaj luñ ci wax lan la ndax da dañoo wax ne wérut wala waaw loolu de moo gën a woyof ci liñ ci wax ne wérut ñi ci ëpp gën li gën a woyof ci lañ ci wax mooy wérut waaye ñu ci bari sax dañoo àgg ci ne dañ koo sos dañ koo sos waaye daal daanaka ñëpp moom dañoo mas ci ne du xadis bu sax euh, bay benn benn daal ñoo koy ñoo koy dëgëral euh, ci li ñu tuddee ahlu sunna wal jamaa waaye ñu ci ëpp ëpp ëpp ëpp moom saxaaruñ ko ñu ci bari sax dañoo àgg ci dañ ko sos juróomeel laaj bi day wax ne léeg-léeg day fekk miraas moom dañ naan ki fi jóge bàyyi na fi lu ëpp ñeenti soxna muy laaj bu demee noonu ndax soxna yëpp dañuy doon wala ñeent ñoom njëkk yor rek ñooy doon waaw te dañ naan ñeent njëkk yor rek ñooy ay soxna ñooy ay soxna ginnaaw ñooy ay soxna ñooy doon. Euh, ñeneen ñi seen seenub sëy fasuwut di góor gu am ñeenti soxna buñ newoon dañ koy may itam may ga wérut fasuwut kon kañ ne la wala juróom-benneel la wala nangameel la te ëpp ñeenteel rek kooka ab sëyam fasuwut fasuwut kon du bu njëkk bu fi njëkkoon njëkkee itam góor gi du ko doon ndax ab sëy bu wér doxut seen diggante juróom-benneelu laaj bi am nag jokkoo laaj bi ko jiitu day wax ne ci am ñeenti soxna ba noppi ñu ne nañ ko keneen day laaj kooka loolee ñu ne dañ ko ko mayaat ko seq lan moo ci seen responsabilité mu tàmbale ci kilifa jigéen ji ki may njabootam ku am lu mat ñeenti soxna lu ci responsabilité am moom miñ maye tam xam ne kiñ koy may yor na lu mat ñeenti soxna loolu moo ci responsabilité am ba ca ña seere ñoo ñëpp lay laaj ak kooka lan la ndax soxna la wala du soxna li ñu waxoon ci ginnaaw rek ndax euh, du sëy bu wér léegi nag ñoom ñëpp def nañ lu jaaduwut ñoom ñépp def nañ lu jaaduwut ko ci xam rek eh, def na lu jaaduwut ku xamul nag moom deesu ko topp deesu ko topp daal bu fekkee xamut bu dee ku xam te xamut nag ba tey ñàkk gee jéem a xam loolu ak eh, gàttañ lu la ci moom waaye daal moom du soxna Euh, te wàll yooyu yëpp ku ko xamoon ba noppi bokk ci ci wàll yooyu itam def na lu jaaduwut juróom ñaareel laaj bi day wax ne mbubb yi nga xam ne dañ ciy desine croix yi nga xam ne chrétiens yi dañ koy jëfandikoo ndax sol ko dagan na bu dee loolu la de bu dee croix ci boppam la de Euh, warisu ko sol ndax mandarga la mandargam jeneen diine la diine judul diine lislaam jullit nag warta yor mandargam diine judul lislaam croix croix nag am na lu muy nurool te doonu ko te doonu ko bokkut ak ñaari rëdd yu galanu rek du caagin ñaari rëdd yu galanu rek croala croa daamnu mi bindoo maa fi ñuy galanoo day féete kaw bi taxaw bi taxaw ca kaw ca ca kawam fa féete kaw la ñuy galanoo waaye buñ galanoo ci digg bi ci digg ñaar yépp kon du nekk croix bu fekkee dañoo jàng itam mën na dañuy tuddee x ñu bindee x ci français ki làkki tuwaa bi bu bindoon tam du croix loolu du croix bu bindoon ne plus plus mooy ñu tolloo ñaar yëpp ñu gaadoo ci seen ci digg ñoom ñaar ba tey du nekk croix waaye bu fekkee bi taxaw nag ca kawam wala ko bu ci des gaan loolu mooy croix croix noonu lay bindoo loolu moom dañ koy bañ julit warut sol mbubb mu ko am sàkkantuma ak jëmi croix ci bopp mu di ko takk ni ko chrétien di def juróom-ñettal laaj bi day wax ne ku fase soxnaam ñetti yoon la waaye nag yaar yu yi ñoom ñaar rek ko yëg ñoo ko xam mooy borom kër beeg soxna si yoonu mujj rek mooy wu nit ñi yëg teewul muy fase de fase moom nit ñi yëg ko ñàkk ko yëg ñoo ci am ki am sañ-sañu fase moom bu fasee rek fase ma dog na rawatina nag bu fekkee soxna si yëg na ko bu ko yëgutoon sax du ko tee dog sax tuuma rek bi ko yëgee kon bu yëgu keneen du ci doon dara yëgu keneen du ci dara bëgg nañ nag kuy fase mu wutal ko seere waaye li tax ñu bëgg ko mooy buñ demoon ba kenn wedd ci seere si mën a wax la am dëgg-dëgg waaye ginnaaw ñoom ñaar kenn weddiwu ci kon fase ma dañ koy japp ñoom ñaar nangu nañ ne fasé won nako ñaar yoon yo xam ne ñoom ñaar ko yëgoon kon bu ko fase waatee fase mu ñu leen yëg mooy ñettal bi kon nit ñi yëg ko ñak ko yëg dara am ci jaxit juroom ñentol laaj bi day wax ne ku kaas xaaliss gañu ci dem jënd ci am xarum tabaski ba ko jox nit te xamal ko da ko gañee ci carte lim ko jënte da ko gañee ci carte ndax dana ko jël du ko jël du ko jël du ko sañ jël euh, xaalis bu lewut bu daganut kuñ ko jël tam xam ko waru ko kuñ ko bëgg a jox tam ko waru koo jël moo xam dañ ko koy may moo xam dañ ko koy faye moo xam du rek bu fekkee xam na ko daal waru ko jël fukkeeru laaj bi dafa bëgg a xam fan la nit di toll bañ ne loru na loru ju tax yoon may ko mu leb mu leb bor boo xam ne riba da cay am buy fay foofu nag mo xam banque la ko leb moo xam feneen la ko leb waaye li ñu xam daal mooy luñ tere bu ñàkkee pexe ba sës ba sës ba sës danañ ko ko may ngir ñàkk pexe googee bu ko weesoo xam ne weesu na ko bu dee ci lépp bor boo xam ne riba da cee tege noonu la demee sës googu nag kañ la ci nit di àgg mooy benn li tax muy lépp day doon lu munta ñàkk ci moom lu munta ñàkk loo xam ne bu bu amul rek dana ko indil jafe-jafe ci dundam lu mënta ñàkk lu mënta ñàkk ci jamono ji itam mooy mënta ñàkk tey tey tey tey daal wala fii ak suba wala ginnaaw suba benn ñaareel ba it mënu koo amee neneen lu dul lépp tariba am ci bu yaar yooyu dajee rek dañ koy jàppe ku ñàkk pexe ku loru yu mu ta ñàkk ci dund ngir dëpp bopp lu mel ne lu mel ne lekk lekk lu mel ne naan lu mel ne euh, béréb bu mu dëkk yu mel noonu yu mu ta ñàkk ci nit ki la bu fekkee àgg na foofu mënu koo ñàkk tey tey tey wala ci jamono yii te mënu koo amee leneen lu dul lépp bor bu bu bu ànd ak riba boobaa manees na ko jàppe ku ñàkk pexe kañ la cay àgg nag dëgg-dëgg nag moo koy xam moo koy xam moog yàlla na xam ne yàlla daal xam na moom du noo koy atte waaye yàlla koy atte noonu liñ ci man rek ne ko daal boo tolle foofu dañ lay jàpp ndax toll na fa nag moo koy xamal boppam bu xam na bu fa tollut yàlla xam na te moom it war naa xam laaj bi ak benn te moo ci dafa bëgg xam nee na nit fan lay sañ a fan lay sañ lekke ci ñan lay sañ lekke daal te du ci am euh, ay euh, la daanaka rek fépp la rek dëgg la alxuraan am na lu ci ñëw waaye la ci ñëw firiwut ne niñ tudd rek la nit sañ lekke ci ñoom waaye daa fekkoon ñoom ñu doon ca am lu ñuy xalaat mooy leen ñi ngeen di am lu ngeen di xalaat ci lekk ci ñoom nag dara nekku ci mën ngeen a lekk ci ñoom waaye firiwut ne te foofa rek la nit lekke kon ku mën di doon ku la yéene ku la yéene ca lam yor daal <laughs> ku la yéene ca lam yor euh, te benn mu woola wala mu fekk la fa moom mu woola ca Euh, xam nga ne boo jëfandikoo daal du ko metti du ko naqari du ko bañ sañ nga faa jëfandikoo bu dee lañ jëfandikoo lu daga la ci yow loolu rek la amut fuñ ko tënk ci suuratu nuur am na lu ci yàlla di wax waaye loolu firiwut ne ci ñii rek la nit sañ a lekke waaye daa fekkoon booba ñoom ñu doon am lu ñuy sikki sàkk ci lekke ci ñooña ngir ragal kii di leen ci fekk àq di leen ci fekk mu xamal leen nag àq ni wut ci loolu loolu kon mooy laaj fi dikkoon nu doon leen jéem a tontu suñu këm kàttan noo ngi jéggalu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm wasalaamu alaykum wa rahmatulah wa barakaatu